kon bu ñuy waxtaan ci lu mel noonu ah, comme niñ koy defee ak mu jot dinañ seet réew mi ñi nga xamee ni ñoo ci am xam-xam te amantu aman maanaam du am xam-xam boo xam ni am xam-xam bu oyof la ah, moo tax ñu invité woon ki nga xamee ni mooy docteur Diop Samb wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi fesal ci njëlbeen gi sunu kontaante bu baax ci fekke gi ñu fekkee bis bi ak boole gi ñu ci boole euh, di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo doon waajal bis bi euh, rawatina ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma di sunu xarit di sunu soppe ci kóolute gi nga xam ne am na ko ba boole ñu ci ñi war a taxawal tey liggéey bi code de la famille bi comme ni ngeen ko xamee mooy téere bi nga xam ne ci la waa Sénégal di sukkandiku ngir wara a lijjanti lépp lu jëm ci wàllu askan wi ak seenu dundiin tàmbalee ko ci amuk doomu aadama ak fi muy askanoo ba keroog muy génn àdduna dañ koy miiras ba biram jeex ci mbiri àdduna loolu lakot bi di méngoo histoire code bi nag mi ngi dellu ci atum 1972 loolu am na muy tekki mooy ne kon bi ñuy doogale daanaka moom sunu bopp euh, ci la code bi ñëwee loolu am lu muy tekki ndax ndax bu ñu moomoon sunu bopp dëgg dëgg dëgg ndax code bu ni mel ñu àtte ci sunu wàllu nekkin wala déet waaye ak lu ci mën a am ci jooju jamono la fi code bi ñëw ba fi mu jaar ba tey fi mu nekk ak doxal gi nga xam ne moom la waa réew mi di doxal doxaluñ leneen ci code boobu pour wax nag ci li nga xam ne mooy taxawaayu sharia ci code bi nga xam ne mooy code de la famille bi nga xam ne ci la Sénégalais yi di àttewoo dana dellu tuuti ci histoire ndax code bi bi mu ñëwee ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi amoon nañ xam-xam bu wér ci ne senegaal eh, li fi ëpp ay jullit lañ kon Sénégal réewu jullit la ci jullit yi tamit am nañu fi yor seen kàddu ñoo xam ne ci ñoom lañuy dellu ci lépp lu mën a doon ndax lislaam moo tëddee noonu amul lenn loo xam ne ah jullit ñi danañ ca sóobu ca dellu wuñ ca ci seeni kilifa loolu bi ko ñi nga xam ne ñoo yilifoon réew mi xame am na lu ñu defoon muy jéego bu am solo boo xam ne donte continuer wuñ ko mais baaxoon na te buñ ko continuer woon mën naa am njariñ mooy ne projet bi dañ koo jëloon yóbbu ko ci kilifay diine yi jox leen ko kër yi diine yi fenn fu nañu dem fa yóbbu fa ab copie ne leen kat lii mooy tëralin wi nga xam ne ci lañ bëgg sayto saytoo mbiru askan wi ci askan wi comme ci yéen la ñuy dellu xoolal leen ñu li ci nekk ba xam nan la demee lu ngeen ñu ci wax dinañ ci bàyyi xel bu ñu koy wotee danañ xam la ca jaral méngale ak pas-pasi waa réew mi ak la ko ca jarul waaye li am ba des ci ñi xam mbir mi dëgg-dëgg ca xam naa ne ku mel ne euh, Imam Mbaye Niang dana bari lu bari lu mu ci war a dellu si ba ñu ko yóbbee ci kër sëriñ si avant sëriñ si li ci wax seen xalaat li ñu joxe seen gis-gis code bi yóbbu nañ ko ba voté ko kon foofu la code bi njëkk amee problème ci lu koy tax a nekk yoon wu ñu war a mën a jaar loolu moo tax bi mu demee bañ voté ko réaction yi tàmbalee di feeñ fekkoon na sax kilifa yi ñu ngi liggéey ci suuf di daje di jàngat code bi di ci karmat li nga xam ne moom lañ ci war a wax ak point yi nga xam ne jàppe nañ ne code bi dëppoowu ci ak lislaam moo tax bi mu ñëwee fii ci Touba nga xam ne tey histoire aada nafsahu comme ni ko arab yi di waxe histoire mi ngi indiwaat boppam tey jotaay bi di jotaay bu doy waar waaye di jotaay bu daw yaram ndax nii ñu toogee tey di ko gëstu noonu la fi mag ñi nekke woon bi code bi ñëwee ñu def ci ay jotaay ba génne ci ay conclusion yu leer nañ moo tax bi mu egsee fii ci Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rahimahullahu waxoon na ci wax joo xam ne ba léegi kenn fàttewu ko mu ne woon moom day code bii narfudu duxula hadihi almudawana fii Touba xaw ma lan waaye code bii moom du dugg Touba kenn du ko fi atte ndax fii ci réew mii di tuubaa dëkk bii di Touba pàkk bii di tuubaa Touba kàddug yàlla subhanahu wa taala moo fi féete kaw lépp lu mën a doon ca amul benn doomu aadama boo xam ne am nga sañ-sañ di tëralal nit ñi loo xam ne lu wuteeg kàddug borom boobu la ba noppi nit ñi di ca wéy loolu la nga xam ne mooy li Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ba mu demee tamit Tiwaawan même tontu boobu la fa fekk ca mbokkam ma Cheikh Abdoul Aziz rahimahullah moom it mu wax li ni mel ne las na fi Sénégal bi xaajatin ila mithli hadihi al mudawwana ñun sénégalais yi soxla wuñ bii code loolu sëriñ Abdoul Aziz wax bind ko ne wala yamliku al musharrihuna xaqan fi fardi mafahima wa qawanina ajnabiya ala alshaabi wa xaasatan annaha tatasaadamu maa qanaatihim wa tasawuraatihim ka muslimin pour tënk rek mu ne daal jullit gi ñu doon ay jullit di dellu ci alquran ak sunna mayu ñu ñuy jëfandikoo code bii kon waa Tiwaawan it même kàddu bi nga xam ne moo jógee Touba moom la ñu feddali ki boo demee ci famille omarienne ba loolu la ñu wax nga dem ci mbooleem pàkki diine yi nga xam ne moo fi nekkoon ci jooju jamono cañ jotoon ci code bi même tontu boobu la ñu tontu woon ku mel ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma amoon ci taxawaay boo xam ne mooy taxawaay bi ci gënoon a fés ndax man maa ngi koy tuddee ci sama benn téere boo xam ne moom laa tuddee zaimul muarada ci jamono jooju moo nekkoon maanaam rasul xirba euh, moo nekkoon ci kanamu ñi nga xam ne ñoo jugoon ngir wax ci code boobu ak xeex ci code boobu ba kenn du ko àtte woo ci Sénégal moom yemul ci bind rek maanaam ay kàddu yu gàtt waaye dafa bind ab téere téere bi rek boo déggee thème bi xam ne pànk mooy wax kalimatullahi hiya al ulya la ko tuddee téere boobu maal asafi shadid ni mu waroon a tasaaroo ci réew mi tasaaroowu ko ni mu ko bindee muswadda bi jël na ko yóbbu ko ci mbooleem waajuram yi fi nekkoon ak ay mbokkam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon rek moom ñoom ñëpp dëggal ko kenn ku nekk bind signé ne li li sëriñ Cheikh Mbacke mii wax ci laa ànd ba fa li ci ginnaaw alhamdulilah yàlla defal ma tawféex bi may bind sama doctorat vraiment document boobu nekkoon ci maraaja yi ëpp solo ci yi ma doon dellu la ma ca doon bind ci di ko bokk ci doctorat bi ma xeeb ko lool ne lii daal dama koy ber def ci beneen liggéey bu gën a yaatu mooy kalimatullahi al-ulya bi dama koy chara génne ko yaatal bi ma ko defee alhamdulilah euh, sëriñ Abdoulaye Mbacke mii Gaynde Fatma yëg ko jokkoog man ñu waxtaan ci mu ne ma day bu dee am na ci yitte bëgg naa ñu móol ko ndax mu gën a tasaaroo ci laa ko wax ne ko ah man de Mbacke li bu ma sañoon ñu móol ko ndax man li ma yitte rek mooy xam ci la ko muuree Maroc vraiment ñu muur ci lu bari tasaare ko ba ñu baree baree bari jot ci ñu traduire ko ci français traduire ko ci arabe ñàkkul ne am na ci ay exemplaires yu fi des man naa am dina am ñum ci jox bala ñoo jógee fii Serigne Cheikh Mbacké def téere boobu tudde ko kalimatullahi hiya al-ulya jàpp ko di critiquer ko ilmiyan waxu ko waxi opposant waxu ko waxi ku mer waaye da ko wax ci xam-xam wax dëgg yàlla man téere bi ñu baal ma bi ma koy jël dama jàpp rek benn sëriñ moo bind nii di wax rek ay xalaatam maa ngi koy wax léegi Imam Mbaye Niang ne ko man gën naa xamaat sëriñ Cheikh Mbacke nag ci beneen niveau bi ma duggee ci téere bi di ko jàng ndax benn boroom xam-xam laa ko fekk bu mag bu xuus ci charia xam dëgg dëgg dëgg l'islam ni mu tëddee wax fa wax yoo xam ne mu ne suta wax lu ko gën a leer lu ko gën a wér ci mbir moomu kon loolu moo doon taxawaayu kilifa yi diine yi ca loolu moo continuer ba ci seeni i sët ak seeni doom ak seeni jarbaat ak seen i taalibe ndax li nga xam ne moo ñuy tuddee SYRCOF te muy CRS si nga xam ne fu ñuy wax tey ci code de la famille bu Sénégal muy kuréel gi nga xam ne ay imam ay attekat ay boroomi xam-xam ci wàllu fekk ci wàllu droit di ay jurit ñoo fa ñoo ko sosoon ngir taxaw ci code bi ngir ñu war koo changé ba mu dëppoo ak li nga xam ne mooy gëm-gëmu sénégalais yi ak seen pas ñoom it bi ñu ñëwee liggéey nañ ci kon boobu liggéey bu rëy ba sax am ay proposition yu avancé yu ñu defoon jox ko état Sénégal waaye teewul ñu football ko sànni ci àll ba loolu loolu nag bu amee ak coono boobu ñu ciy daj tàmbalee ko ci sëriñ soosu boroom xam-xam yooyu ba ci seen sëriñ yi ak seen taalibe yi ñëw seen ginnaaw ba ci ñoom imam bay ñaami ba ci tey jii tey jotaay bii war nañoo laaj ndax nag dëgg dëgg nag mbir mi jar na ko wala de ana code bi lu ci nekk lu jar ngeen di yëngu bi yëngu ak di ci sonn bi coono. li ma gis code bi juriste yi mën nañ ma ko wax si li ma jàngat ñu bari liruñu code bi dañuy war di wax code de la famille ñu bari xamuñu lan moo nekk si biir code parce que sénégalais yi jànguñu ni arabe ni français kon majorité sénégalais yi xamuñu li ñu bind lu mu doon code bi li ñu wax ni valeur dafa am importance si une dëgg la Napoléon Bonaparte moo ko tëgg en 1804 te juróom-ñaar fukki réew ak benn ci àddina bi inspiré wu nañu ci code bi Égypte sa la bokk donc ñun effectivement suñu dépendance comme colonie tax na comme pays yi ko nekkoon francophone te dinaa bi rek francophone même États-Unis d'Amérique dafa utiliser aussi le code civil de Napoléon moo tax Napoléon daal di waxoon Waterloo effacera toutes mes batailles la seule chose qui me survivra c'est mon code civil mu ni Napoléon nag dañ ko gagné sa Waterloo mu ni dana far njàmbaarte bi mu mosoon am yëpp ci àddina waaye am na lenn loo xam dana ko mujj mooy code civil bi te wax na dëgg 71 pays mujj nañ ci tonk léegi ñun li ñuy gis ci biir code bi moo di boo dee jullit li kii def euh, avocat boobu li bu deewee nañ ko àtte ci àtte islam mais code bi daf ko wax nee na bu dee jullit nga soo deewee su yow loolu mooy sa volonté ci loolu lañ lay àtte kon problème bi sénégalais yi la aussi parce que sénégalais bu dee ñoom jullit lañu lu ñuy wuti tribunal lu leen tere dem àtte wu ci li nga xam ni loolu lañ gën kon war nañ jamaat éducation ak ci seen bopp lan mooy seen propre conviction parce que ki gëm ba xam ne ëllëg dafay tase yow man xayaat boromam kooku loolu la gëm dem na ni bu ma deewee bu leen ma àgg ci loolu parce que yoon may na ko ko li ëpp nag ci li ñuy wax ci biir code bi moo di affaire wu sëy affaire wu tas ak affaire wu doon ci bi am na avantage yu mu amal jigéen ak avantage yu mu amal am na avantage yu mu am inconvénient yu mu amal jigéen ak inconvénient yu ñu amal góor parce que biir code bi lenn de bi mu ñëwee ni kenn amatul droit jël sa jabar rek ni fase naa ko mooy répudiation foofu de la amal garanti jigéen ñi te duñu xëy dàq leen ci kër gi ak lañ ko defoon yëpp te loolu tamit war nañ ko seetaat parce que bu ñu waxee dañ ko bëgg tënku ci diine mais diine dafa am worma diine dafa am sutura waxula nga xëy kat sa jabar boo xëyee ba mu neex la nga sonn naa ci moom dàqu naa wala nga toog ko am ñu ko fii def toog ba mu neex leen ni dañoo taboo bant dañuy seet kan la ñuy wàññi yooyu c'est des questions yoo xam ne war nañ ko xoolaat bu ñu waxee jigéen ñi ñoom liñ ci xeex yu bare am na lu ci code bi toogul statique code bi transformé nañ ko plusieurs fois ay articles par exemple jigéen amul woon droit ubbi compte bancaire jigéen amul woon droit génn sans mu am autorisation jëkkëram amul woon droit dëkk fu jëkkëram dëkkul mais condition moo tax bu ñu affecté sa jëkkër fii affecté sa jëkkër fale li ñu bu ñu leen ko nangu mu am si yoo xam ne tamit ci affaire polygamie loolu la jigéen ñi gënoon xeex mooy tawu yeewu yeewu yi mais boobu moo suñu ci am pour gain de cause parce que société bi si boppam moo ko nanguwul ndaxte sax dañu mujj gis li mu doon wax ni code bi daf lay permettre nga mën a opté régime monogamique benn femme ñaar ñett ba ñett gis nañu même professeur université fa ñu yaakaar ne foofu la xam-xamu tubaab ba gën a màcc mais ñoom ci seen bopp ñooy wëlbatu takk jabar pare wëlbatu ko jëlaat beneen ñaari jabar donc bu fekkee ne affaire polygamie bi la les femmes ont perdu la bataille au Sénégal li ñu bëggoon saa li normal la ñu doon xeex parce que école euh, de de jeunes parce que ni yéen formaté woon. ñu ñëw mouvement année quatre-vingt mouvement yeewu yeewu ñu ko xeer léegi jigéen ñi sax contraire bi la ñu revendiqué ah euh, gis nañ Côte d'Ivoire jigéen ñi di xeex naan dañu bëgg polygamie mais gis nañ Guinée tamit fan yi ñu ne ñoom def nañ loi boo xam ne kenn bala ngay takk néewuñu bu kenn takk ñaareel de dañu ni bala ngay takk ñaareel foog nga am avoir sa soxla bu njëkk pourtant loolu Maroc bii Maroc bii ñun gënuñu leen jullite si li ma yaakaar mais Maroc la mu doon naa man ngeen fekke naa ko ba ñu koy 2003 ba muy génn bala ngay takk ñaareel xaaj bi takk juge bi mooy dem seet est-ce que nga yor ñaar wala ñetti jabar ni doog la koy jox moo tax Maroc le taux de polygamie est de 2,5 pour cent kon société bu nekk même bu ñuy wax fii polygamie dañuy wax diine bi mais xëy na suñu aada suñu cosaan moo ci gën a dëgër jar nag ñu xoolaat. est-ce que ku mu neex nga wër takk jabar yu la neex jur ay doom sànni leen ci mbedd mi doo leen yor loolu tamit c'est des questions de société yoo xam ni liy ndërmeel valeur famille aujourd'hui loolu bokk na ci léegi euh, débat bi bala mu doon gën a baax ngeen jël article par article ñu xool lan la ci code bi lan la ci diine wax parce que sinon plaidoyer lay doon pour ou contre le la famille man sama position fii ce n'est pas être pour ou contre dañ ma demander en tant que sociologue en tant que chercheur ma xool le passé fi ñu jaar bi fi ñu jëriñoo ñu dama naa xool l'avenir avenir bi tamit war nañ ko gëstu ñu seddaat ko maintenant sama position personnelle mun naa ko wax li ma doon wax fii ba léegi li ma tënk si si gëstul maintenant la question boo xam ne une position personnelle la jógee aussi ci gëstu moo di à un moment donné Sénégal à chaque fois que problème bëgg fi am dañuy utiliser diine bi te dañ koy jaarale si jigéen parce que suñu évolution historique dafa génne islam confrérique ak un islam radical ci s'est mis en nga xam ne ñoo dem Tombouctou daaneel fa armée ya fa nekkoon te bis bu ñu egsee Sénégal tamit loolu la ñuy def. buñ fi ak bu leen bu ñu amoon possibilité loolu la ñuy def parce que ñoom nee nañu shirk la li nga li gis ni ñu gisee ñun suñu confrères yi ñoom loolu la ñu léegi nag biñ fiy doog a ñëw au Sénégal li suñu gëstu man bi dañu contrôle confrères yi bi ñu demee ba gis ni mënuñu contre confrères yi ñu wëlbatu ko def ligne de masse parce que ñu si bari si ñoom ay anciens communistes lañ woon ñu wëlbatu ko def ligne de masse liñ daan jàng ci mouvement marxiste yi suuru ci biir nit ñi bu ko defee ñu dem ànd ak famille confrère gi pour ni léegi l'islam lañu lañu bëgg dooleel à partir de ce moment porte d'entrée bi gën a simple mooy affaire bu jigéen mais je dis que day wax science parce que du huitième au douzième siècle le monde musulman xam-xam bu fi amoon Michel Serres moo ko bind sur terre scientifique si monde islamique la génne woon ka lañ def ba xam-xam boobu ndërmeel donc bataille idéologique moo am aujourd'hui pour le contrôle de la société sénégalaise et de consciences des Sénégalais il faut ni nit xam ko te loolu nag si li gën a maillon bi gën a faible lañ ko mën a jaarale mooy kasu réeral nit ñi ci ay waxu jigéen mais man ma position personnelle en tant que assistante sociale docteur en service sociale pour liggéey ci question famille ba gis ni famille Sénégal ñu ngi la réeral ba tax ma dem jëli ñoom Cheikh Ndiaye nii. ak ñoom waa Jamra ak ñeneen pour wax leen leen il faut ñu liggéey ci question wu famille je pense que waxtaan war na mën a am pour ñu xool naka la ñu tëggee li ñu war a jublu et si biir loolu damay wax toujours jigéen ñi ni leen islam confrérique est le meilleur allié des femmes parce que islam confrérique dafa mos a dox si suñu ñu laa wax ne dafa mos a jox jigéen ak ak gëddaam la preuve tey lan moo ñu fi tax a toog su dul benn jëmm benn jigéen muy soxla may mais soxna may moom kan moo ko meññe bu dul maam jaara Bousso bi nga xam moom moo am dëkk la seule femme mais kooku kan moo ko meññ Asto Waalo bi nga xam ne nee naa si on fait l'historiographie des grands savants du monde mouride li ñuy amee soxna Asto Waalo bare na parce que bi borom këram làqoo moom moo jël formé ay aafisu alxuraan yi nekkoon foofu kon l'islam confrérie sénégalais dafa joxoon cër jigéen man bu ñu naxante euh, le le monde va évoluer or soo ko tegul ci dëgg ak ci li nga xam ne moom moo mën a dugg ci bopp nit ñi du mën a jàng kon autant ce code là a des points yoo xam ne am baaxul ci jigéen pour man am na point yoo xam ne amul benn njëriñ jigéen am na point yoo xam ne amul benn njëriñ góor sul dafay indi des questions conflictuelles il faut qu'on retourne à un islam apaisé ñun ci loolu lañ jug dañu daan wax boo tooñee ñun la bàyyi koog yàlla yàlla dana ko yàlla dana ko duma ëllëg c'est une façon de parler mais mënuloo marcher aussi contre contre l'histoire li am léegi ba am mooy li Serigne Cheikh waxoon parce que pour moi Serigne Cheikh mooy ki nga xam ne xalaatam si la gëstu pendant plus d'une trentaine d'années mooy nandal man li may xalaat sax sëriñ Cheikh li mu ñu euh, li mu ñu mën a bàyyi ci jàngat sur les questions de société sur les question de famille tant man koy nettali mu naan benn vidéo buy jàll li mu naan maam Adama ak Awa wàccewuñ leen en même temps Awa nañ ko wàcce ren mun a xam ne lu tax dafa bañ góor gi tiituñu ci moom parce que moom dafa saragaloon jigéen moom Cheikh mu ni góor ñi wax nañ la dafa sal seen tànk ñooñu daal ñoo doy waar xanaa du ñu jàpp cinq fois par jour ba seen tànk di tilim bala ngeen pare xasal la xam nga c'était une façon très apaisée bëgg la dugal ci boppam nga mën a ubbeeku mën a déglu ba xam li ñuy wax mais il est resté un orthodoxe dans la si li ma jàngate ci ci moom kon li des ba des Sénégal la majorité moom moo ne woon xale yëpp daal ñu daw daw jublu ci diine waaye maa daal ñu am ñu leen gàttandu le ce la là c'est un siècle religieux xale yëpp bëgg nañ gëm nañ diine fii tey Sénégal yi ci ëpp mais ñan ñoo leen yor ñan ñoo leen ñànk pour wan leen yoon bi ñu war a bi ñu war a jëm donc le contexte peut être facile mais am même temps il n'est pas si facile que ça parce que islam confrérique bi ñu amoon dafa rax dafa rax li am léegi ci dëkk bi y mouvement radicaliste kii est extrêmement impuissant dans ce pays parce que man damay dégg yoo xam ne loo xam ne man mii bu ma ko xamee waa ministère de l' intérieur war nañ ko xam ñun sociologue li ñu xam ci terrain ministère de l' intérieur war nañ ko xam parce que xale li ñuy dugal ci ay école di raxas seen bopp pour dindi si moom li fi mag ñi defoon loolu war nañ ko jéem ñu seetaan dama toog ba si yàgg ma ne c'est vrai man sama maam ñu ngi juddu ci toolu xare parce que papaam dafa àndoon ak Cheikh maamam ànd ak El Hadj Omar ma nga des Bandiagara comme moom mais su fekkee ni damay déglu ñoom li ñuy doon wax ak lu ñuy nettali si moom laa daan dégg bu may nett bu ma amirul mu ngi nii la parce que Cheikh Ahmadou la doon wax mais tey dama dégg ay émir fii au Sénégal or la ñun sociologue le le le langage linguistique dafa am doole ñun sëriñ lañ xamoon Cheikh lañ xamoon mais tey tey toog nañ ko ay amir di am fii ci Sénégal mais war nañ ko jàngat donc euh, bu fekkee ni waruñu teg suñuy ay xal ak suñuy ay xalaat si affaire wu ay jigéen ci affaire wu ay leneen parce que jigéenu senegal comme je dis lu lu génne lu mel ne soxna Asta Walo lu génne lu mel ne Maam Jaara Bousso lu génne lu mel ne soxna Mbay mi fi doom ñaan lañ yàlla mu am ñeneen ñi fi génn te gëm nañ que si daara ñuy former ay Maam Jaara Bousso yi mais dañu war a def attention entre l'utilisation idéologique de la religion ak li yàlla wax parce que li yàlla wax nous avons tous li ñuy wax Serigne Cheikh moo ñu wax on est tous vicaires de Dieu sur terre dañu am obligation kenn ku nekk si ñun dem jàng diineem xam koo xam li mu wax mu war ko rey ah man de dinaa man ñi nga xam ne dañu xam suñu sociologie xam suñu histoire muy Ahmad Bamba mu Cheikh Tidiane Alhaji euh, Malick mooy ñoom bàyyi na sax ñeneen ñoom Limaamu Laay bu ñu ñëwee ñoom jàngatal ma sama dina tënkal ma ko ñoom laa gën a gëm ki nga xam ne fale la jóge jël benn téere boo xam ne ki ko tënk xaw soo ko bindee ak xaw ma parce que ñun en en la université dangay am silsila dañuy am validation bu ñu nee Cheikh Gueye ñuy docteur la en il faut mu am lu ñu ko prouver ñoom maam Cheikh Amadou Bamba xam nañ seen jaar-jaar. ba nañu xam ba am euh, intérioriser diine ba wane si seen ay jëf mais beneen auteur comme bu njëkk ba rek dañ daan topp naan Karl Marx ak Mao Zedong beneen nit bu jógee feneen bind ay téeréem ah man de du ma ko gam-gamlee ki nga xam ni au moins mën naa xam moom xam na sama diine xam na sama culture lu muy wax te jàng am woon nañu pédagogie boo xam ne indi woon nañu nànk nànk nànk nànk ba ñu comprendre parce que xam nañu lépp du sotti ci benn bis loolu laay wax man li may jàng si éducation wu Serigne Cheikh li muy wax xale beeg mag mi ku nekk di si gis sa bopp que li mu wax du soppeeku di nga am niveau boo koy dégg mais plus nga koy gën di dégg dégg-dégg ba day gën di xóot mais du mais du waroon.